الحمد لله الذي يجازي من أسلم daayira yëpp a fiy teew ñoo fiy toogandoo waaye bu jëwriñu université yëpp toogee euh, suñu Aba mbay bëgg naa ñu woo ko mooy jëwriñu université Aba mbay waxoon naa ko ne ñëw itam moom itam il est là nañ ko woo fu mu mën a nekk nañ ko woo mu ñëw ah ndax ñu ubbi atelier yi wax dëgg yàlla kon lii mooy mbooloo mi woote nañu ko waxee woon daaw nag lii mooy suñu ñaareelu daje ñu tuddee ko congrès scientifique daje bii nag ngeen ñëw tey wuy si du suñu xalaatu bopp waaye Cheikh Seydil Mokhtar ci boppam moo ci joxe ndigal ne na ngeen sàkk bis boo xam ne bisu xam-xam lay doon yéen ñëpp ngeen bokk dajaloo defandoo ko ndax université am sa bopp waaye moo ne na ngeen woote bis boo xam ne fu université ne fu école de formation ne jëruñu mag yëpp ñëw nañu moom école de formation bi ay IAM ay ay ay ISI ay ITECOM e ñoom ñëpp seen i jëwriñ a ngi fi waaye da nga xam ne bu ñu limee jëwriñu université yi rek daanaka ñoom dana leen mën a yóbbaale kon ñëpp ñu ngi fi sëñ bi nag moo waxoon na ngeen wut jotaayub xam-xam boo xam ne at mu ne nag ku ne bàyyi lam doon def ngeen dajaloo benn barab defandoo ko fa moo loolu waral ñu ñëw dajaloo fii tey li ñu wutal nag ak yeneen daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci yoonu murit mooy daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci marché ci marché yi ak ya nekk ci daari tër bi yi ne ci koñ yi moo ñun dañoo nekk ci système éducatif bi mooy le système enseignement français bi nga xam ne yàlla moon natoo ñu nekk ci loolu moo waral ñu ne ñun kat kon war nañu suñu wootee bis mu wute tuuti ak lañu ca nekk ca daara tërbiye ak nga nekk ca marché la ñuy def waaye gannaaw fii seen le temple du savoir c'est l'université war nañu wut ay ndaje xam-xam yoo xamante ne bii des na exprimer wu wax suñu xalaat ci réew mi waaye nag bàyyi sa yow tànk gannaaw ñu ngi ci biir système bi nañ njëkk a tàmbalee d'abord ci li nga xamante ni mooy wàllum njàng mi ak njàngale mi daaw daje woon nañu fi waxtaanee laaj du système du système éducatif dégager ay ay ay ay ay prise de perspective ren dajaloo waat nañ ci atelier bi mu di lël woo fi ay nit ñu bari ñii di ay chercheurs ñii di ay enseignants ñii di ay directeurs ñii di ay gérants ñii di ay étudiants ñii di élèves ñii di ay syndicalistes ñii di ay parents d'élèves ñii di ay njëriñu daayira ñii di waa société civile ñii di ay journalistes comme li ngeen ko xamee ngir ñu bokk waxtaan ci njàng ak njàngale. li nga bëgg moom lañ bëggoon ci bëgg waxtaan ak wet gi ñu ci waxtaanee ren wute na ak daaw daaw crise système bi lañ wax ren nag dañoo bëgg waxtaanee. kiy jàng ak kiy jàngale ku ci ne noo war a mel yan atu yan prérogative yan perspective lan moo saw jikko naka nga war a mel pour que loolu mën a nekk njàng mu aw yoon ndax gis ngeen élève ak enseignant étudiant ak élève toujours ak étudiant ak euh, professeur toujours wéeru yi am seen diggante gis ngeen université gi ñu nekk gis nañ ba tàyyi étudiant wala élève bu séquestré professeur da ngeen gis ñoo xam ne dañuy wax seen seen kilifa naka sul noona ci kilifa yu jàngale itam yenn saa yi nga dégg ci ay comportement yi nga xamante ne bii wax dëgg yàlla ci ak ñi ko sañ wax yenn saa yi du rafet ci ak ka koy jàngal ci ay xeeti pression ak ay xeeti manquement yoo xamante ne bii bu ngeen ci duggee yéen ñi nga xam ne yéen yor kàddu gi laaj cee tënk ci xalaat de sa ko def ci benn document incha allah dem jébbal ko sëriñ Bassirou Mbacké Abdou Khadre bi nga xam ne moom lañ suñu booleel moo suñu bunt ci moom ngir mu yeggee ko sëriñ bi lépp loo xamante ne rafetlu na ko ca danañ ko jël jébbal ko autorité administrative yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir njàngale mi te kooku incha allah le chef du gouvernement la ko bëgg jëm mooy le premier ministre defal ci copie le ministère de l' éducation nationale ak le ministère de l' enseignement supérieur de la recherche wax leen ne leen daayira yi yëngatu ci université ak école yi mooy murid yi fa ne lii mooy seen xalaat ci wàllu njàng ak ñaar wet nga xam ne la ñu donc at mu ne incha allah fas ñu def noonu kon li may wax daayira yi dootuñu yem rek ci jàng xës ak naan kafe waaye des sa génn nag ay piste de réflexion wut ay jataayi xalaat ndax foofu la jamono toll ndax dafa wax naa ko bërki dem yaa ci télé rek bu fekkee Sénégal ndaw ñi fi ne ci turu ay rappeur ci turu ay mbëri làmb ci turu woykat sañ nañoo wax au nom de la jeunesse buñ ñu amee boobu droit ñun jàpp ne ñun tam ñi nga xam ne ñu nekk ci ay jeunes ay jeunes am Sëñ Tuubaa war nañu am droit ñu wax suñu xalaat ci réew mi te loolu dañ koy sukkandikoo incha allah ci njàngaleem Cheikh Khadim kon loolu moo waral ñu dajalee leen ci lël bi ngir bëgg waxtaan ak yéen ci sujet bi nga xam ne annoncé nañ ko léegi kon incha allah dama yox le secrétaire général bi nga xam ne moo yor bi moom dina leen présenter travaux yi wax leen naka la travaux yi demee ak naka lañ koy defee ba keroog muy jeex bu ko defee ñu dugg nag ci travaux yi xaar waxtu xewlu bu 14 heures jotee def pause xewlu daal di jàll nag ca bi nga xamante ni moom la ñuy def ngoon ñu ñaan képp ko xam ne ñëwoon nga ci atelier bi nga toog xaar panel bi parce que sëñ bi ci lay ñëw panel bi ñu ngi ciy waxtaanee la vision de Cheikh Ahmadou Bamba une solution pour l'humanité naka la gis-gis sëñ Tuubaa mën a nekkee ak rawukaay muccukaay solution ci mbooleem adduna sëpp nga xam ne waxuñu ku ñuul ko weexuñu Sénégal ak ak ak Afrique waaye adduna sëpp des na waxtaane sëñ Tuubaa ak jàmm gis ngeen bi ñu toll yëpp a ngi tàkk daanaka ñu wër yëpp ak adduna si Sénégal bokk ci ñu ngi sant yàlla kon lu ko may loolu naka lañu def ba préserver loolu des ci waxtaan sëñ Tuubaa ak jàmm sëñ Tuubaa ak liggéey liggéey moo yor am réew liggéey mooy tax doo sonn liggéey mooy tax doo mën a jaay sa dignité liggéey mooy goreel doomu aadama suñ tubaa ak jaamu yàlla ndax ak jaamu yàlla moom moo tax yàlla sakk nu kon ñetti panel yooyu incha allah la ñuy waxtaane ñetti panel yooyu nag ngoon incha allah fële ca salle bu mag ba fa la ñuy dem fa lañ koy defee ji loolu yi nag ay étudiants ñoo koy def ñun choix boobu lañ tànn mu jël ay étudiants ñu def thème yi mais ñu jël ay boroomi xam-xam yoo xam ne ñooy seen i encadreur ni étudiant buy def thèse ni muy def jël ab sujet dem traité ko ñu wutal la benn borom xam-xam benn professeur mu di la encadré lu baax mu ne li baax na lu wérut mu ne dindi lii li wér kon étudiants yi ñoom ñoo koy def benn étudiant bu nekk université Dakar mooy def benn thème bi beneen benn étudiant bu nekk université S beneen bi ab koy def seen i encadreur mooy sëñ Mbacke Abdourahmane mi ñëpp xam ci yoonu murit bokk ci Rawdu Rayaahin ak sëriñ Khadim Lo bu institut Al Azhar ak sëriñ Alhaji Ndiaye Cheikh bokk ci rabi rabita bi nga xam ne ñoom ñooy jàngale alxuraan ci ci Sénégal donc ñoom incha allah à partir de 15 heures bu ñu jëlee pause pare ñoom ñooy def waxtaan yooyu kon pare sëñ bi dana ñëw wax ay kàddoom li ko sëñ bi yónni ci ñun message bi nga xam ne la xalif général des mourides bëgg na koo wax daayira yëngatu ci université école du Sénégal yi message dañ ko déglu taataan ko bu paree mu defal nu ñaan yeewi ko ba déwén incha allah kon ñu ngi ñaan ku fi teew rek yàlla yàlla faj saajo lépp lu ñu fi waxit ak lu ñu fi def yàlla dëpp ak ngërëmal sëñ Tuubaa wasalaatu wasalaam ala rasulillah suñu xaadim cheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam donc euh, ñu délégué ñu ñun euh, très modestement ñu ngi ci remercier commission bi ñu bokk euh, ci confiance bi ñu jox di ñaan yàlla suñu borom mu dimbali ñu fayal ñu leen di gërëm assistance bi yépp voilà présentation donc man maa ngi tudd docteur Abdoulaye Idrissa Dieye je suis enseignant en sociologie en anthropologie en gestion des ressources humaines donc euh, tey di occasion boo xam ni ñun suñu commission dañoo commencé d'abord par magnifier donc nous avons commencé je vais parler français et wolof en même temps puisque l'assistance le demande surtout le wolof d'accord donc euh, di moment boo xam ni ñun li ñu def nii sax yàlla nañ ko réussir ak jàmm te defe naa réussir nañ ko xamuñu ko sax ndax euh, maam Abdou Aziz Dabakh mu baax ma da daan wax naan su ma logee guuxu ndox gis fuy takk nar jur ak daay je préfère guuxu ndox moomu bañ a jàll lu dul ma jéem donte xam naa ne xëy na du fay mais ma sotti ko si daay ko kon lii ñu def nii defe naa ne ñun xamuñu ko sax lii moo gënal sëriñ bi fuuf toog di naan kafe ak di jàng ay xasida rek rek yam sa nag laa wax rek sëñ bi le moment est extrêmement difficile Les conditions sont abominables et il est urgent d'agir. Et comme le disait l'autre, quand c'est urgent, c'est parce que c'est déjà trop tard. donc sëñ ku ko xam-xam ni fa mu teg xam-xam tegu fa dara ndax nee na na nga jàppee ki la taxaw di la doye di loo xam-xam na ko jàppee seytaane bu taxaw di la woo loolu xaadim rasul suñu commission gis ni déjà ñun bi ñu commencé rek li ñëpp def mooy jox xam-xam dara jaam ak gëddaam yëkkati ko teg ko place am. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga dem nga jàngi xam-xam donte da ngay dem ba Chine Chine à l'époque inimaginable nit di fa dem ñu wëlbatiku Rasulullah sallallahu alayhi wa ni développement ñeenti pilier la am bu fa benn màbbee rek mbaaru développement du taxaw ñu ne ko ñeenti pilier loolu nan la. muy la science et la connaissance la droiture la solidarité et les prières des nécessiteux kon xam-xam la jiital moom yonent bi salaa salaam si mbir mum mënti doon boo ko fondee laneen lu dul xam-xam yaa ngi sàkk say yaa ngi yaa ngi sànq say effort ak say sacrifice ak sa investissement meilleur investissement bi nit def wala bi réew def mooy bu jëm si xam-xam Abraham Lincoln dafa ni si vous jugez que l'éducation coûte cher essayez donc l'ignorance ñun nag duñ ko essayé <laughs> François Mitterrand wëlbatiku nii l'enseignement est à la société ce que le cœur est à l'organisme humain un métier noble que seules les grandes âmes au cœur pur peuvent épouser ma wax ko ci wolof François Mitterrand nee na jàngale de ni xol taxawaay bi xol am si yaram si yaram xol taxawaay bam sa am nga xam ne maam Cheikh Fall bam ne sëñ bi yaram wee am na lu sa ëpp solo am na lu sa yées ñaari yoon mu yónni nit mu indi mu indi xol ba mu ne ko waaw nee na njàngale système mu njàngale ni xol amee solo ak dayo ak daraja si si jëmm si yaram noonu la jàng ak jàngale mel si maanaam si réew si société si askan kenn du ko fooy l'université est le, l'épicentre du savoir. L'univers cité, l'univers où se construit l'avenir de la cité, moo tax ñu naan ko université. Campus, campus, un camp où se confectionne la piste du développement loolu tax mu tudd campus. Suñu commission gis ni problème majeur fondamental bi ñu am ñun ci suñu réew. mooy dañuy jaawale ñaar éducation ak instruction wala enseignement ak éducation maanaam dañoo dañuy enseigner kese dañuy instruire kese mais éduquer wuñu te enseignement kese wala instruction kese sans éducation c'est vain stérile tel vache de quatre-vingt-dix ans du du du jur mukk kon l'enseignant doit être quelqu'un qui enseigne, qui non seulement enseigne, mais aussi éduque, forme des âmes, participe à l'éducation des masses. Parce que l'université et les écoles ont pour vocation de pourvoir les entreprises en ressources humaines de qualité. nit ñiy taxawee développement réew ñu ngi leen di tàggate ci université yi ak écoles yi ñu gis ni kat. enseignement ak éducation du benn benn waru saa manqué day mel ni avion buy jéem a naawee benn laaf du dem fenn wala nit kuy jéem a doxe benn tànk doo sore kon système bi bu bëggee nekk système bu baax bu performant ba nga xamante ne si des jur développement réew mi développement boo xam ne développement endogène lay doon mooy bu suñuy réalité mûrir et puis maanaam accoucher ko parce que le véritable développement ne s'impose pas on ne développe pas mais on on se développe le Joseph Kizer boo wax ñun nag malheureusement on nous amène des modèles d'enseignement li ko sëñ bi waxee des curriculums ya nga xamante ne si ils sont importés ils ne sont pas issus de nos réalités socioculturelles pour ñu développer il faut suñu enseignement ñu xalaatal ko suñu bopp ba noppi di tàggatal suñuy jàngalekat suñu bopp ku la abali bët fa ko neex ngay xool sëñ bi problème bi yépp mooy dañoo moomagul suñu bopp waaye eh, dañ koy wax te dey dëgg dañ koy wax bu ñu moomoon suñu bopp am ay programme d'enseignement yoo xam ne ñoo ko tabaxal suñu bopp ñu gis ni benn secret la enseignant bi am benn secret mooy secret métier enseignant mooy tenue ak retenue tenue ak retenue c'est le secret de l'enseignement de la euh, euh, de la fonction enseignante du métier enseignant tenue waaye li nga sol bu duggul ki ngay jàngal li ngay wax mënu koo dugg mooy l'enseignant doit cultiver une certaine respectabilité il doit dégager exprimer un certain charisme ba ki muy jàngal am envie mel ni moom ñe ñee ko mais dama say dolli ñaar muy yéene ak compétence walla xam-xam ak tabe enseignant da ngaa war a tabe xam-xam xam-xam dafa nekk loo xam ni fa muy jóge du jeex te boo say joxe da ngay gën di am mais dama koy misaal rek bu ma jëloon benn fichier boo xam ne man maa ko moom sa ma jox ko mm, mm, mm, sëñ Maroon Male jox ko ko envoyé ko ko ñu dem ba jimmi jamono sama ordinateur yàqu waa ndax ñàkk naa fichier boobu déedéet damay dem récupérer ko si moom rek enrichir waat jàngalekat bi donc ni ko commission bi waxee mooy dafa war a nekk. quelque buy exprimer un leadership éthique un leadership en terme de respectabilité ba noppi ñu accompagner ko si métier mu koy defee nam ko xalaate nam ko xalaate non pas ci ay programme mais ci si doxalin wax si méthode ba méthode ba daf saa war a participer si confection méthode ba muy jàngalee dañ ko saa war a loolu lañu gis ñun mais élève bu enseignant dóor ñu punir enseignant ba ba mu siiw sa dëkk ba billahi foot boobu duma la may ñetti weer élèves yëpp dinañ ko defaat faute ba élève ba def ba ñu duma ko ba ñu sanctionné enseignant ba faute boobu dina ñëwaat si école bi ñépp a koy def parce que dan naan dama koy def ba mu laal ma ñu laal ko kon on ne puni pas on ne sanctionne pa les élèves alors que xale xamul yàlla yar la xam mais ñi ñuy tere ñu dóor suñuy doom dañuy dóor seeni doom bu baax bëgguma jaar ci terme bi njàngale dayo bi mu am si réew sëñ bi nga xam ne réew mu la raw jàng ak jàngale moo tax mu raw la lépp ngi si culture te ñun la compréhension que nous avons de la culture c'est que ñun dañu foog dañu foog ne culture mooy maanaam fecc ak danse rek chanson et dance la culture englobe quatre principaux ingrédients l'art la religion la science la technique et la technologie euh, sëñ maa ngi lay sant bu baax di salaamaaleykum euh, di kontaan lool ci suma teewaay fii alhamdulilah euh, parce que euh, dama koy yàgg bëgg am kuréel yu mel nii ñu ci mën a waxtaan parce que mbir bi président wax na ko sànq ci sunu commission xaw na doy waar te dafa am benn responsabilité bu lourde boo xam ne am nañ ko may wax rek simplement reprendre benn partie l'essentiel de ce que j'ai retenu ci suñu discussion mooy bañ a ragal euh, xam li ñu suñu borom jox sëñ du sëñ Touba wu murit sëñ du sëñ Touba kenn sëñ Touba wu borom la moo ko yónnee su la sa borom mayee or may la alal da nga koy reconnaître xam ko jëriñoo ko te nag. di jéem a inventé réinventé di gëstu feneen te fekk à côté am loo xam ni ñu ngi ciy teg suñu bët bët def na ay preuve am mi ngi transformé suñuy communauté di transformer adduna aujourd'hui ci contexte bi ñu nekk religieux au niveau mondial ñu gis ni modèle bi ñu am modèle boo xam ne la war nañ ko mën a commencer comme présenter un modèle boo xam ni en tout cas au plan international ci wàllu apaisement ci wàllu paix ci wàllu transformer doomu aadama wax dëgg yàlla war nañu am audace ak jom mën ko commencer di ko jàngale di ko wone sans j'insiste beaucoup là-dessus bañ ci écarter chrétien bi am xel bañ ci écarter tijaan bi am xel bañ ci écarter kenn mais mu nekk simplement loo xam ni alal la ressource la muy modèlu Sëñ Tuuba wax ko nag mooy euh, souvent damay gis tamit waxtaan yu mel nii mais la difficulté c'est la mise en œuvre mooy comment concrètement dans un espace de formation mën naa tàmmali di ko commencer ci wax ji ak vocabulaire bi langage bi ñuy utiliser déjà dafa am solo sànq président doy jar na ci may wax ni sànq euh, première commission bi def euh, rapport am dafa mel ni dafa am mot bu ñuy ragal tudd wax nañ ni laprenant man de leneen laa buggoon ñu am fit di ko wax mooy l'aspirant du benn ma bëggoon tamit yàgg naa koy wax ni université kàllaama keneen la wante am na beneen kàllaama boo xam ne ñun continuer le contenu nous comprenons ce que c'est ak l'impact bi mu am mooy daara xëy na mën nañ ko ooye école mën nañu wax ni université mais je pense que les composantes d'un daara ou la daara xaw ma nañ koy waxee defe naa continue bi ak impact bi du benn ba ci récemment mu am benn rencontre au niveau international sur les questions de la recherche ñu daje fak ñoo xam ni ay docteurs ay agrégés wante bis boobu ñoom seen bopp ñoo commencé di weddi seen façon def recherche recherche boo xam ni résultat bi mooy simplement en termes de publication génne naa lii publier naa lii ñuy commencer di weddi en anglais ñuy opposer ñaari concept output research ak impact research maanaam recherche boo xam ni résultat bi mooy simplement nombre de publications et cetera ak boo xam ni day am impact Sëñ Touba je pense que modèle u jàngam te je je pense bien il y a des historiens qui sont là rencontre am ak Cheikh maam Cheikh Fall je pense que c'est moment extrêmement important mu won ko ñaari xeetu jàng yi ñaari xeetu école bi su dee école bële la demal ci gaañ yi ñu ngi fi su dee beneen genre jàng la pour am impact kaa ñu ànd donc jàngale bi mu won ak mode du euh, euh, développement wu école u Sëñ je pense que l'objectif c'est plutôt d'avoir un impact may terminer ci benn exemple bu ndaw bu ma boo xam ne am naa ko bërki démb suma biir école ñuy wax quelles sont les valeurs au sein de l'école et cetera ñu ne respect ma ne ko man de ngeen firil ma ko ci wolof ma jàngale ko ci wolof japone bu ñëw français bu ñëw ma ne la man lii mooy respect ci man mooy ormal mënuma ko firee respect ci biir ma partager valeur bu mel noonu comme orma ak ñeneen ak ñeneen moo tax vocabulaire dafa important ak li di il y a des choses il faut pas chercher à les traduire il faut les maintenir telles quelles ñu mën ko jox benn contenu à nous partager ko et en ce moment peut que euh, euh, mise en œuvre bi dina gën a yomb dina gën a facilité wu. may terminer simplement président nga baal ci benn point benn julli lañu am euh, julli yi ñu am. benn surat mooy ñëw te lenn rek moo ci constante ci ñaan ihdina siratul mustaqim euh, moo tax sànq ma commencé ma ne en réalité li ñu war a jàngale du question savoir bi parce que loolu moom yomb na bëri na savoir bi wante lii jafe mooy hikma te hikma dama koy xaw a jegele euh, euh, un peu rapproché à la droiture ihdina siratul mustaqim mooy teg ma ci yoon mais ban yoon moi ni ma koy firee mooy permets mois aide mois à prendre la meilleure décision ci instant bi ma nekk ci situation bi ma nekk complexité situation bi doomu aadama ak lider ak chef ak képp koo xam ni am nga responsabilité la difficulté c'est toujours de prendre la bonne décision kon jàngal xale ak jàngal nit mooy ci contexte bi mu nekk comme contexte bi ñu nekkee nii nga bañ a jàng alxuraan wala jàng jàng tubaab boo xam ni sans conscience mun nga indi ay jël ay décisions yoo xam ni qui peuvent avoir un impact extrêmement négatif sur la société kon l'apprentissage et comment enseigner hikma boobu mooy toute la difficulté et c'est toute l'intelligence des anciens à travers les dara foo xam ne da ngay jàng ilm jàng am savoir en même temps il y a ce côté-là éthique et spiritualité et en même temps ils ont tous un métier il y a une application on cherche à avoir un impact sur la société di dem di bay di def leneen rek leneen tubaab yi tey jii ñu ngi koy jàngale c'est nga baal ma dafa ñaaw li li li li dal euh, nos communautés dafa ñaaw lii dal nos communautés même julli même julli aujourd'hui il parle de méditation ay Harvard Business School de grandes universités tur trouvé nañu tur bi duñ ko tuddee prière il parle de méditation de temps en temps suñu bëggee récréation ñu arrêter un peu allons faire une méditation ils ont leur technique de méditation yenente sallallahu alayhi wa sallam suy appelé donc à la prière day ne Bilal fais l'appel simplement pour que ñu mën a reposer wu julli tey jii et c'est un défi que je suis en train de me lancer fële ma ne il faut ñu indi xale yi suñu jàngee ba sonn julli nekk seen moment wu récréation moment wu euh, repos moment wu euh, euh, changer un peu et je pense que la fonction de la prière c'est pas simplement côté àllaaxira moom suñu diggante ak suñu borom la yawmal xiyaam la mais il me semble que nous avons tous les éléments qu'il faut pour repenser, et c'est le mot de, du président Doy, une refondation, mais avec beaucoup de courage, beaucoup d'audace, et en changeant les mots, en changeant les mots. lii étudiant démb ak étudiant tey jii du benn j'ai entendu parler de l'enseignant lii enseignant démb ak enseignant tey bi du benn les environnements ne sont pas les mêmes nga baal ma wax ji gudd na lool ngeen baal ma macha am luñ ci dox ña taxaw ci taxaw bu rafet dox ci diggante bi ah sëñ bi tamit sëñ Bass Abdou Khadre lépp lu mu mën ndox na ko ci taxaw nañ ci sëñ bi dalal nañu Touba ñaari yoon invité nañ sax ñu dem ndogoo tuuba jullee fa juma mooy juma bu mujj ci weeru koor ñu koy sante suñu boroom di leen ñaanal yàlla na yàlla yokk taxawaay bi eh, yokk sutura gi ci darajey yonent bi ci barke darajey xaadimu rasul euh, yaakaar nag mën na am ndax réew euh, ay xale ko yor te bu nu nay jàng pour ëllëg la dafa am mag bu ma doon wax nee na dafa am mala boo xam ne ci àll bi day daw rek di ut yoon ay kilomètre bu dawee dawee ut yoon dellu siwaat toppaat yoon bi ma ne ko lu tax mu ne ndax doom yi am yoon bu ñuy jaar boo ko gisee muy daw yoon kon nag njàng dafa am solo ci réew te école boo gisee tubaab yi dañu doon wax benn expression ñu ne après la conquête des armes il faut pacifier les cœurs et les esprits par le biais de l'école parce que xam nañu ne l'école est un instrument puissant de transformation sociale et de domination coloniale xam nañ ko surtout par le biais de la langue parce que toute langue véhicule une civilisation boo xoolee pratiquement njàng bi fi tubaab yi bàyyi woon amul changement yu bëri moo tax ñun tey bu dee dañu bëgg sunu système éducatif mu méngoo ak ñun sunuy valeur lu ñu wax léegi rek te le ministre wax ko mooy la refondation de notre système éducatif sur la base de no valeurs ku wax valeur nag mooy li fi ne Sénégal mënoo ko tabax te tuddoo Serigne Touba mënoo tabax te tuddoo mouridisme Sénégal mënoo ko tuba tabax te tuddoo El Hadj Malick Sy munoo ko tabax te tuboo këru diine parce que diine dafa am place bu ñu fi liggéey ci biir Sénégal kon nag loolu am na solo suñuy valeur suñuy bëgg-bëgg suñuy ressources parce que damay wax ni tey boo demee dëkk yu mel ni Japon wala nga dem yeneen dëkk yi ñoom seen njàng seen kàllaama lañ koy def kon nag loolu am na solo ci réew mi moo tax thème bi muy thème bu am solo jàngalekat euh, lan mooy ay sañ-sañam lan mooy melokaanam ak moom lu mu war a mel di ko tënk rek ne il faut ñu xoolaat ni ñuy tànnee jàngalekat yi ci Sénégal mooy système recrutement parce que Sénégal loo gis problème yi fi indi yëpp mooy dans les années quatre-vingt dañoo tubaab bi dañoo imposer ñu jël ay jàngalekat yoo xam ne tàggatuñu leen ñu dugal leen ci système bi luñ ci doon ut ñoom rek ko xam waaye tey ñoom gis nañu loolu mënut a dem et loolu day poser beneen problème mooy profil parce que jàngalekat dafa war a doon d' abord ki qui a des bu dee dañ jàngale parce que même arxuraan pour nga mën a ubbi daara foog nga jàng arxuraan man mii mënuma dem ubbi daara ne damay jàngale arxuraan moo ko defee misiba tey problème bi loolu la boo demee tey Touba daara yi ñu ngi ko ubbi daara yi fu ne ñi ñee ngi jàngale loolu lu am solo ñaareel bi mooy ñu tàggat jàngalekat bi moo tax ñu ne jàngalekat bi dafa am xam am autorité ñu jox ko gëddëm jox ko xam ak yelleefam mu doon un démocrate xam suñu valeurs yi loolu yëpp mu tëngu ci ñun suba ban type de sénégalais lañu ñu war a former beneen mbir mi mooy tamit payoor bu ñuy jox jàngalekat bi mu doon payoor boo xam ne day tax loolu yëpp parce que tubaab dañu ne formation ak motivation dafa bokk ci qualité de l'enseignement donc loolu yëpp système bi c'est un tout mënuñu defar lii bàyyi lii mais am nañu yaakaar ni bu ñu tënkoo suñuy aada suñu culture suñu religion parce que Sénégal vraiment teen bi bu ñu rootee suba ba euh, fii ba junni at du jeex ci xam-xam bu dee xam-xam kese buñ ci tënkoo lu ne mën nañ ko defar ci réew mi kon nag moo tax ñu ne ñun bu ñu buggee système bu mucc ayib bu jëm kanam buy tax réew mi mën a suqaliku il faut que ñu tabax suñu école bàyyi xel ñun suñuy aada bàyyi xel mag ñi fi ne luñ fi jàngale luñ fi teg ci xam-xam ci yar ci teggin ci comportement ak ci liggéey donc loolu am na solo donc ci gàttal daal loolu lañ bëggoon wax euh, di gërëm di sant ñëpp di feddali suñu kóllëre euh, Serigne Bass Abdou Khadre ndax wax nañu ko mu ne ñu bu ñu dajee ba pare daf ñu ne daal bés bi bëgg na at bu ne ñu dajeex moom waxtaan dalal ba ne ذكرك alladi xalaqa al insana wa allamahu albayan wasalaatu wasalaamu ala ashrafi xalqi llahi walmursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man iqtafa athaarahum ila yawmi ddin naudu billahi min shururi anfusina wa min sayiati wa min sayiati amalina man yahdihi llahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi nga mbégte bu baax a baax di leen présenté thème bi nga xam ne mbooloo mi boole étudiants ak élèves murid yi ci Sénégal ñu koy wooyee Mawahibul Akyaas ñu sasoon ñu ñu traité thème bi te muy Cheikh Ahmadul Khadim wasalaam wala boog si Ahmad Bamba ila paix mu nekk aussi ni ko modérateur bi waxee thème bu am importance vie contexte yi euh, contexte bi ñu toll actuellement ci euh, ci euh, àdduna léegi bi léegi incha allah pour traiter thème thème bii nii plan bi lañ bëggoon suivre ginnaaw bi ñu defee suñu introduction incha allah danañ ñëw ci contexte bi muy euh, actuellement euh, bu noppee aussi danañ ñëw ci euh, l'islam et la paix naka la l'islam gise jàmm ba ñëw aussi itam insisté ci benn concept te mooy al te lu lu gën a bari ñoon ko jihadisme alors que l'islam xamul sax la moo jihadisme incha allah danañ ci danañ ci gën a ñëwaat wax lan mooy ay cause am ak aussi lan moo war a nekk ay conditions bu ñu ko xasee bu koy def Euh, bu noppee nag dana ñu dóor ñëw nag ci la vision ci la vision de euh, du Cheikh sur la paix donc dañu considérer Cheikh Ahmed Bamba comme modèle ci lislaam modèle koo xam ne day prôner la non violence euh, loolu nag dañ koy xaaj ñaari xaaj bu njëkk bi dañuy daan wax ci sëñ bi naka la appliqué jàmm ba ñëpp gis ko ci ay jëfi boppam yoo xam ne moom moo ko jëf waaye itam idée idée yi nga xam ne wala boo pensée bi sëñ bi am pour que ñu mën a am une société boo xam ne ci jàmm une société de paix incha allah euh, euh, ci ci noonu lañ bëgg a jaar. kon ci introduction bi dañuy xamle xamle bu gàtt rek euh, te mooy dañuy jéem a def définition conceptuelle te su te sujet bi dafa mel ne ñaari moo la muy Cheikh Ahmadou mu nekk. une personne et la paix mu nekk benn concept léegi Cheikh Ahmadou mooy kan moom dañ ko dañ ko daan wooyee Mouhamad ibnu Mouhamad ibnu Habibullah wala ñu koy wooyee Xaadimu Rasul ñu gën kaa siiwee ci mu gën a siiwee ci sëriñ bu mag bi mu ngi feeñ jamono en 1883 ci benn village bu ñu wooyee Mbacke Bawal waajuram bu góor nekkoon Mamour Anta Sali Mamadou Anseli moom itam nekkoon conseil ci benn dammeel bu ñu woowee la Joor Lat Joor mi nga xam Mamadou Anseli moom mi ngi mi ngi faatu en 1886. waajuram bu jigéen itam itam nekkoon Maam Mor Maam Mor jaar bu Jaara Buso Serigne Touba radiyallahu taala mi ngi wàcc liggéey en 1922. bu nu bëgg 27 du moins 27 bu nu bëggee def aussi euh, euh, définition conceptuelle bu euh, mot dañuy bëgg a euh, jël baaton arab bi baatu arab bi muy asalaam pour mën a def pour mën a euh, def liaison bi nekk ci diggante conceptu assalaam ak al kon asalaam bu ko doon wax euh, ci cosaan asalaamatu la doonoon nga xam ne dañ naan salima yaslimu salaaman wa salaamatan mooy li alxuraan naan lahum daaru salaami inda rabbihim bi muy wax ak jaamikatu yàlla yi di wax ne ñoom seen kër ëllëg àjjana lay doon Seydina euh, Aboubacar radiallahu taala anhu mel ne dañuy défi dañ koy définir ci arab naan assalaamu amaanullahi fil ard la paix et la protection de Dieu sur terre donc même mot salaam day renvoyer aussi moo bu naan assilm assilm itam dañ koy wax jublu ci assalaam mooy fi alquran naan yaa ayyuhal lazina amanu duxulu fi silmi kaafa euh, kon assilm foofu al islam yaa ñoom ñëpp nag jub ñu jubloo wax rek asoloxo te mooy te mooy résolution ak jàmm mu euh, asalaam nag nekk euh, contraire alxarb euh, mooy li alxuraan naan wa in janahu li silmi fajinah la di wane ne asilmi itam dañ koy wax jublu ci alislaam kon contexte actuelle bi nga xam ne ci lañ posé sujet bi nekk contexte bu am am solo ndax àddina bi bi dafa très dafa mouvementé trop ci ay yoo xam ne dara lu jur jàmm amu ci ñu mën cee rek citer lu mel ne euh, le terrorisme araman al irhabiya euh, mu nekk tamit euh, loo xam ne dañ ne kàpp àddina bi ndax boo xoolee continent bu ne presque saa yu xëyee média bi di di diffuser ay information yoo xam ne ci loolu rek lay wax ak itam ci même al irhabiya boobu ñu bari dañ koy dañ koy dendale itam ak al jihadisme dañ koy dendale ak jihadisme moom tamit nekk moo xam ci au nom de l'islam nañu koy def wala déet waaye lu ci mën di am moom moom jurut jàmm incha allah euh, daan ci ñëwaat comme ni nga ko waxee woon léegi. bokk na ci itam mooy racisme racisme aussi nekk loo xam ne day créer beaucoup de euh, conflits euh, au niveau mondial bokk ci itam fanatisme moo xam fanatisme ci wàllu religion lay nekk wala fanatisme. dëgg la ñun ñëpp ay jullit lañ waaye nag ci suñu wàllu mazhab ci lañuy ci lañ fanatique wala ci suñu wàllu tarixa loolu lépp nekk loo xam ne luy jur ay euh, ay problème la mel ne nag euh, problème yu demee nii bu demee ba posé wu ci àdduna bi mel ne dana am solo lool ñu xam ban taxaw la ci lislaam taxaw waaye itam niti lislaam yi itam ak niti diine yi ku mel ne Cheikh Ahmadou Bamba ban vision la ci am lislaam moo vision euh, bi mu am ci jàmm doy na ci secret moom ñu mi ngi dérivé euh, euh, moo lislaam ñu ngi ko dérivé ci moo euh, asalaam loolu doon na sëkk pour wane ne lislaam diine jàmm la bokk na ci itam yàlla mi nga xam ne si nii moom lañuy jàmm bokk na ci ay turam itam mu nekk bokk na ci ay turam muy jaamu jooju muy huwa allahu alladi laa ilaha illa huwal malikul quddus assalaam waaye itam jullit yi itam fu mën di dajee ci àddina bi li leen li ñuy njëkk a waxante li ñu njëkk a woote weccante ci ay kàddu mooy nuyoo te mooy asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, bokk na ci itam li wane ne lislaam diine jàmm la alxuraan mi nga xam ne moom la jàng nekk suñu téere suñu euh, livre de référence boo demee moom euh, wax na moo baatu jàmm dikk na ci 133 fois au moins wa dikk na ci 133 ay au moins te contraire am te mooy la guerre dikk ci lu 6 fois. ma lislaam yi itam. mel ne objectif am yëpp itam mi ngi lalu ci gindi nit ki tegtal ko yoon wi nga xam ne moom mooy men vers la paix mooy li alxuraan naan xad jaakum min allaahi nuurun wa kitaabun mubiin yahdi ma llaahu man ittabaa ridwaanahu subula salaam nga xam ne objectif wu lislaam day mel ne mooy rek euh, euh, mooy euh, maintenir la paix ak itam gindi nit ki pour mu àgg ci paix lislaam mi itam dafa teg ay principe Euh, pour maintenir la paix principe bi xam naa ne euh, euh, comme temps bi météo ko ndax ñu ngi naan ñu vingt cinq minutes dañ ciy jaar nii rek duñ ko jot leeral waaye bokk na ci principe yi rek muy égalité égalité amul benn xeet bu gën bi wala boog benn nit yu gën yeneen nit ñi te mooy aaya bi koy wax na yaa yoon naas taqoo rabbakum allazii xalaqakum min nafsin waahida le fait que ñun ñëpp ñu jugéenoo ci yàlla dañu fàtte suñu origine di wane ne ñu ñëpp ci benn ci kenn nit lañ jóge loolu noonu day wane ne ni sommes tous égaux bokk na ci itam yàlla souvent saa saa yu dee eh, saa yu dee interpellé nit ñi bu leen dee woo da di woo ci benn mot bu leen di boole bu wane ne ñun ñëpp ñoo bokk cosaan lu mel ne appellation yaa bani aadam dañ koy dégg ci alxuraan lu bari loo xam ne dañu renvoyé ne ñun ñëpp benn lañ te à force ñuy sant ñuy sentir ne benn lañ suñu diggante suñu ay relation di gën a nekk relation yoo xam ne relation jàmm lay doon aayaat euh, yi bari nañ waaye itam deuxième concept bi nga xam ne lim nañ ko parmi tant d'autres mooy euh, euh, principe bi nga xam ne jël nañ ko parmi tant bokk na ci amour et entraide loolu tamit aussi l'islam daf ko préconiser mun comme comme principe pour maintenir la paix te bu buñ ci waxee aay bi mu doy mooy wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi alal ismi wal udwan leen dimbalante leen ci eh, eh, ci lu ci lu baax ak ci ragal yàlla waaye nag bu ngeen di milité ci mooy yàlla ak ci noonante salaay salaam itam doon na wax ne kenn ngëmam du mat lu dul ne li mu yéene boppam da ko yéene moroomam am na itam fa ne bu doon wax naan eh, mbindeef yëpp créature bépp njabootu yàlla lañ ki gënal yàlla ci njaboot gi nag mooy ki gën a jëriñ njaboot gi loolu yëpp di wane ne dimbalante aussi ak amour nekk na concept bu am solo wala ba principe bu am solo pour maintenir la paix selon l'islam troisième euh, euh, euh, Euh, principe bi muy le pardon et la tolérance moom tamit nekk lu am solo loo xam ne day tax euh, euh, ba léegi day day permettre ñu mën a maintenir la paix mooy fi alxuraan naan wa jazaau wa jazaau sayyiatin sayyiatu sayyiatu misla sayyiatu mislaha fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala llah ak itam fi mu naan wala tastawi alxasana wala sayyiatu dufaa billati hiya ahsan bu leen nit tooñee sax au lieu ngay fay waaye yow na nga koo na ko defal na nga koo weccee ak lu baax quatrième bi nekk euh, di ñu war a moytandiku lépp loo xam ne day ñagal sa suñu diggante day indi ak noonoo ci biir société bi lu mel ne xeeti jëw xeeti euh, xeeti jëw xeeti espionnage xeeti rambaaj yooyu yëpp nga xam ne ak te actuellement dañu gis suñu société yi mu fréquent ci lool toujours nga gis ne ñu ne euh, diw jël na waxi diw publier ko nangam nangam te loolu souvent dañu seetlu ne saa yu amee dañuy gis ne ñagas-ñagas dana am ci ci relation nit ñi te loolu moo tax alxuraan dañu ko waxtandiko doon naan yaa ayyuhal ladina amanu ijtanibu kathiran mina zanni inna ba'da zanni ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan di di wane ne yii nii ku leen maytandiku ku leen ku leen di faral di appliquer pour nga dëkk société bu bu am jàmm dana jafe ndax day ñagasal euh, relation nit ñi cinquième principe bi euh, di wane ne rek euh, diine yëpp ñoo bokk cosaan origine yi benn lañ mais aussi objectif yi aussi benn lañ objectif di euh, euh, cosaan yi mooy yàlla moo leen moo leen wàccee seen objectif yi itam mooy euh, jubal jubal nit ki gindi ko wan teg ko ci yoon yàlla léegi nag li ci différent rek mooy méthode yi ni yi ni appliqué pour gindi nit ki pour teg ko ci yoon te loolu doy na ci sëkk ñu jël aaya bi naan xuulu amanna billahi wa ma unsila ilayna wa ma unzila ila ibrahima wa ismaila wa isxaqa wa yaquba wal asbaq wa ma utiya muusa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna wa ne rek euh, yónnent yi ma yónni yëpp lépp lu ku nekk da ko war a non seulement da nga ko war gëm mais la ma ko yónni aussi da nga ko war a gëm nga xam ne jullit bi saa yoo xamante nii ne weddi na benn yónnent ci yónnent yi jiitu woon yónnent bi salaay salaam rek day wane ne ngëm ngëmum dafa manqué kon yàlla itam meloon ne ku doon xaw a interpellé yonent bi sallallahu alayhi wasallam naan ko afa anta tukrihu naasa hatta yakunu mu'minin nga xam ne loolu lépp naan ko ndax da ngay jéem a forcer nit ñi ba nit ñi fekk si la ci li nga gëm donc mel ne kon diine du affaire imposition mais affaire exposition la te ku nit ku nekk da war a gis diine ja nga diine ja nga incarné gëm ko bu ñu la xoolee gis ko ci yow sixième et dernier aussi euh, principe euh, selon l'islam ci bari nañ mais yi lañ ci jotagu na jotoon indi muy euh, justice Euh, euh, ci société bi euh, une société day tax aussi jàmm de am ndax saa yoo xam si ni ne benn peuple il se sent opprimé wala wala yu demee noonu dana tax am na sax ci ci spécialistes yi ñu bari ñuy jàngat ci affaire yu terrorisme bu dee kaw Boko Haram dañ naan ñoom dafa nekkoon benn benn peuple boo xam ne day peuple opprimé la woon tax ñoom tamit ñu ñu beddeku ber seen armée bopp di di xeex Euh, kon loolu mooy euh, euh, mooy fi alxuraan naan yaa ayyuhal wa iza hakamtum bayna naas an tahkumu bil adl nga xam ne nit ñi surtout loolu suñu gouverne suñu gouvernant yi lay lay gën a indexé buñ ba nañ fexe ba ba di àtte société bi di leen traité de manière équitable. Serigne Bachir Diakhaté mi doon def exposé bu njëkk bi ci am solo boo xam ne liggéeyam bi am na ko solo. ndax leeral na lu bari ci temps bu gàtt euh, loo xam ne ubbi na ay buntu réflexion ay buntu gëstu te loolu yaakaar naa mooy objectifu euh, liggéey euh, du ne problématique yépp ñu résoudre ko waaye li am solo mooy waxtaane loo xam ne suñ fi jógee kenn ku nekk ci ñun da nga gën a fabuwaat ci wàllu gëstu ak ci wàllu xalaat ngir mën a apporter ay solution wala mën a apporter ay xalaat ci problématique yi ñu fi waxtaane euh, su dee problématique bu jàmm bi mu doon waxtaane euh, lu am solo la thème bu actuel la ndax ñun ñëpp xam nañ ko média yi actualité euh, démb rek dégg ngeen ñu naan ca Belgique am na waajoo xam ne dafa attaqué ñaari policière te ñu ne jaasi la jël di leen attaqué te sax faaw ñu am bët yu ñu lay xoole wala ñu xoolaat la ba xam yow nitub jàmm nga wala déet daal képp ku julli dal dafa mel ne en tout cas ci pays occidentaux yi moom kenn dootu la wóolu ci anamuk euh, jàpp ne doomu aadama nga citoyen nga nitu jàmm nga la te man sama bopp danaa ci nekk si benn anecdote bu xorom boo xam ne daanaka ndëgg ni daaw bi ma demee États-Unis dama jàlloon Canada boo ma fa jógee jël saxaar euh, di demaat États-Unis di dugaat biir États-Unis New York euh, bi ñu demee ba ci frontière bi euh, immigration bi ñu duggee ci saxaar bi di vérifier ñi nga xam ne dañuy dugg biir États-Unis seen i ak seen visa ak yooyu amoon naa visa aw ma benn jafe-jafe ci anam boobu waaye dafa mel ne bi ñu gisee li ma sol muy yére yoo xam ne dafa nuru yére jullit sol mbaxana euh, tudd Cheikh nangam dañoo daal di ne ma say bagage moom andi ko ci beneen wagon <laughs> génne ma wagon yi nga xam ne ci la ñu doon tukki nekk yóbbu ma ci beneen wagon ak samay bagage tey ma fa lu mat waxtu woo xam ne bagage bu nekk ubbi nañ ko këyit wu ci nekk liir nañ ko même su dee français la su dee alxuraan waaye li leen gën a gën a gën a gën a gën a tax ñu gën maa kii sax mooy dafa am photo Serigne Bachir boo xam ne gis nañ ko ci samay bagage te Los Angeles la ma ko ku ñuy wax Basiru Diop di turandoo Serigne Basiru nga xam ne dafay jàngale moom ma ñëwoon seet bi ma nekk Los Angeles am poème bu mu bind ci Serigne Basiru jox may ma ko defaale ci photo Serigne Basiru bu rafet euh, immigration bi ñu gisee photo Serigne Basiru bi ak sikkim beeg yooyu ak kaala gi moom ci la ci lañ gën a xabtalu ne ma kii mooy kan lu ngeen bokk mooy lu nañu laaj ma ko lu nañu lu nañu lu nañu kon moo di ne euh, fitna euh, jullit ñi ñoo ko gën a am ci wàllu wàllu wàllu euh, affaire terrorisme boobu kon loolu lu ñu war a bàyyi xel la bi ñu xoolee xool gisuñ gisuñ gisuñ benn problème am na ci lañ ma bàyyi ma jàll waaye mën naa ne tëye nañ ma fa waxtu woo xam ne teg am na tubaab yoo xam ne ci biir saxaar gi lañ doon demandé visa nga xam ne ñoom amuñu woon sax visa dañoo ñëw fay ci biir saxaar gi ñu defal leen visa ci saa si ñu mën a dugg man moom amoon naa visa ak lépp amoon benn problème waaye tax naa ñu téye fa saxaar gi wax toog nanga kon loolu day wane ne euh, fitna jooju euh, liñ naan ay du ci bopp borom wala ñax bu wow <laughs> dana lakk ñax bu tooy loolu mooy lii dëkk euh, ndax jafe-jafe bi ak problème bi Euh, léeg-léeg man nga ne dama koy dégg ci médias yi wala dama koy gis ci médias yi rek euh, concerné wu ma waaye en réalité ñëpp ñëpp la concerné loolu war nañ ci bàyyi xel te yaakaar na waxtaan wu mel nii lu ci am solo la ñuy jéem a vulgariser philosophie Cheikh Ahmadou Bamba euh, sur la paix ak xalaatam ak gis-gisam ak leen ci wàllu jàmm loolu àdduna bi war nañ ko gën a xam ndax jàpp naa ne ñu bari xamaguñ ko ñu bari xamaguñ ko te. richesse la bu am solo boo xam ne euh, yàlla jox nañu ko te àdduna bi soxla na ko fi ne kon nag war nañ koo gën a fësal war nañ koo gën a leeral ba àdduna bi xam ne kii kat euh, nitug jàmm gi nii koo xam ne philosophie ak njàngaleem ak dundam ak jëfam lépp ci jàmm la jëm te lépp njariñul doomu aadama yi te philosophie jàmmoom jooju euh, war na toujours ñu koy fàttali tegewul ci ragal tegewul ci néew doole loolu lu lu mën xam la ndax euh, am na benn euh, administrateur colonial bu def témoignage boo xam ne ci Serigne Touba xëy na du ma ci dikk lu sori waaye am na lu mu ci wax lu am solo dafa wax ne il se distingue ci Cheikh Ahmadou Bamba la doon wax parce que amour di bien aussi bien pour l'ami que pour l'ennemi kon loolu la wax ci texte bi ba mu demee ba ci fin bi mu ne je sais que les prophètes et les saints qui ont mené une guerre sainte l'ont fait sans disposer de la moitié de la force dont dispose ce cher kon loolu itam day wane ne am njàngaleem ak doxalinam ci wàllu jàmm nekkul loo xam ne li ko giddee moo di ragal wala ñàkk doole wala néew doole kon loolu it lu mat di lu mat di xam la ndax léeg-léeg suñ comparé entre sëriñ si nga xam ne dañoo utiliser euh, gànnaay ngir te sëñ Bassirou doon ci dikk léegi léeg-léeg suñ ko comparé am na ñoo xam ne dañuy jàpp ne sëriñ Touba moom xëy na bi mu ñëwee dafa néew doole wala dafa amul armée yu doy wala wala wala wala dafa ragal tubaab yi ndax lim gis tubaab yi def ko yeneen service yi déedéet tegewul foofu gën naa xóot loolu kon loolu it war nañ ci bàyyi xel te li tubaab bi wax fii wane ne ñi nga xam ne sëriñ si ak yonent yi sax la wax moom sëriñ si ak yonent def guerre sainte euh, amuñ sax genn wàllu doole ak euh, te doole su koy wax mbiru baatin la ak mbiru zahir amuñ genn doole yi Cheikh Ahmadou Bamba amoon kon loolu euh, lu mat di lu mat di bàyyi xel la li ci desit mooy ñun tey nan la ñuy dundee euh, njàngaleem Serigne Touba moom loolu lu am solo loo xam ne moom it war nañ ci dikk saa su nekk te euh, ni ma ko waxee war nañ ko gën a fésal di ko gën a leeral ndax loo xam ne war nañ koo mën a exporter la maanaam produit d'exportation bi gën a rëy ci li Sénégal am muy wàllu ci wàllu jàmm sëriñ tubaab moo ko yore te. xam nañ ne produit bu exportable buñ bu war a mën a tasaare la bu ñu war a mën a partagé la euh, te njàngale moomu taalibe li ñu ngi koy dund ndax bis bu set ñu gis ñu leen di tooñ walla ñuy wax ci Serigne Touba seenub sëriñ lu ñaaw ba daaw ci mujj caricature yeeg yooyu murid yi wane nañ ci fulla ju mat sëkk waaye teg ko ci jàmm ak salaam euh, bis bu set ngeen dégg ay bànd ki kaset ñoo xam ne dañuy wax ci Sëñ Tuubaa lu ñaaw a ñaaw loo xam ne kenn sax nanguwul ñu wax ko sa waajur te ña koy def ñaare su problème amee wala ñu tiit dañuy dem làqatu ji seeni sëriñ ñaare suñuy kilifa ñun ñoo jëkk wax ngir ñu bàyyi leen wax ngir jàmm loolu am na sëñ Saaliwu sëñ Abdou Lahad kilifa yoon wi naka jekk su amee ñu tooñ yoonu murit daanaka ñoom ñooy defal yoon yi ñoom ñooy wax ngir jàmm kon nag njàngalem Serigne Touba moom ñu ngi koy dund ba léegi te loolu amul lu ko gën lu gën a rëy euh, amul lu gën a am solo ci ne taalibe yi naka jëkk am nañ kilifa te seeni kilifa su ay naree am ñaare dañuy indiwaat philosophie Serigne Touba boobu ngir defal leen ngir yoonu jàmm mën a am euh, mënees na guddal lool ndax euh, wax dëgg yàlla. thème bu am solo la thème bu ñu mën a wax lu yaatu la waaye ñu yemale ko foofu kon euh, di wax ne euh, ni ma ko waxee préoccupation bi bi ñu war a am daal moo di fexe nuñ ko gën a siiwale gën a gën a yaatale ba ñëpp xam euh, sëriñ Touba ci lan mooy am njàngaleem ci wàllu jàmm ni mu nekkee au nom de de de non violence nga xam ne avant ñuy wax. Euh, Mahatma Gandhi tudd na ko fi léegi Martin Luther King liñ def ci wàllu non violence bien avant ñoom Sëñ Tuubaa lim ci def kenn xamul lu mu toll kenn xamul lu euh, amee solo. alhamdulilah bismillah inna waliyallah أعوذ بالله من الشيطان في كل موضع وفي الأوتان وصليا وسلما wamxu saqaawatat naan yaa alim wajal fuwaadiya madinatal ulum wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa xalbi arshida wa baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw ba ñu sante yàlla di julli ci yonente bi di delloo sant suñu yaakaar Cheikhul Khadim di leen nuyu suñu kilifa yi fi teew ak mbokki taalibe yi nuyoo bi gën a sell ci nuyoo yi te mooy kàddu gi ñu daaneel sànq te ji dog ngànt lool nag ci kàddu yi ñuy jël ci seen kanam rawatina suñu kanami kilifa yi ñu ñu doon waxtaan it ci thème boo xamee ne tomb bi ci lu muy wax mooy sëriñ tubaa ak jaamu yàlla Serigne Touba nag ak jaamu yàlla bees koy wax xay na di définir kan mooy Serigne Touba matatu ko ndax mbokk mi fi jaar sànq wax na ko waxin woo xamee ne wu leer la jaamu yàlla it ñu ñëpp xamees na ko ndax mooy li nga xamee ne moo tax yàlla suñu borom wàcce fi bokk na ci nag Serigne Touba naka la dundee li nga xamee ne mooy jaamu yàlla googee nga xamee ne moom lañ ñuy defloo bu ñu fàtte ne jaamu yàlla génnul imaan islaam ak ixsaan te imaan islam ihsan googee benn bu ci nekk ba gées na cee wax Serigne Touba naka la ko dunde woon naka la ko dundee naka la ci yare woon taalibe yi ci kaw loolee it njëkk loolee bokk na ci li nga xamee ne day waral ne Serigne Touba li ko fi indi woon rek da koy wanee laa bëgg a wax mooy jaamu yàlla mooy ba mu jógee ba ñu xam ne kii mooy Serigne Touba dafa leeral ñépp ci leneen sama nammeel li ma bëgg du dara lu dul yeesal sunnas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te xam nga yeesal sunna su yonent bi mënee su koo génn ci jaamu yàlla ndax bees ko yeesalutoon kon jaamu yàlla yi dana demee neneen ndax wax na ne képp koo xamee ne day jaamu yàlla te tegu ko ci sunna mooy na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kookee lu ko dalil moo ko tooñ moo tooñ boppam loola waroon moo waxoon ca baawoon ca muqaddamatul amdaax nazaafatuhu kulli mina lëx yu tëhërat wa sunnatuhu insha rabbi ubayyinu daa di waxaat feneen ne lil Mustafa nawaytu maa yu jaddidu sunnatahul xarra wa inni ahmadu kon loole moo ko taxoon a jug loolee ko taxanoo a jug it matal na ko ci matalin woo xamee ne tubaarkàll ba lenn ci ay doomam seedeel nañ ko ko waaye lenn ci ay taalibeem ñoo xamee ne ci ki paaruk cheikhul xadim lañu lañu la ñu yaroo seedeel nañ ko ko ku mel ni cheikh cheikh mouhamadou fadal xasidaam gu siiw boo nga xam ne ba muy jaay ak njuréem di ko jëndee taaliba dégg nga lam wax euh, yaa raiman misla cheikhi mahlan farasta taraax boo eggee ba ca biir xasida da wax ne ne Sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee dafa yeesal sunna su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba boo xamut lan mooy sunna boo xamut su yonent bi fi indi sunna sax da ngay jàpp ne Sëriñ Tuubaa ci boppam moo créé sunna te fekk yeesal bi moo jéggi dayoo yaa di wax ne jaddada diina fa adxa ka annahu xat banaahu yeesal na diine yeesalin woo xamee ne dafa mel ni moom Seexul Xadiim mooy ci tabax diine moo tax boo demee ci téere bu ñu woowee mawahibul ilahiya fil mazaya muhammadiya wax na fa ne daa midaadi wa aqlaami li xidmatihi ixyaau sunnatihi bil xukmi wal xikami jël naa samay xalima ak saay daa yëpp waaye dawal dawali ko ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ci ay xukma ak ay xikam ba tey it loolee waraloon Cheikh Ibrahima Diop almasaar yi waxoon ko lu mel noonee ci ne ko yow Serigne Touba bi ngay dikk jamono ngir bëgg a leeral rek jaamu yàlla gi nga xamee ne moom moom la def rek dangaa mel ni ñi faatu woon ci julli ñi bi ngay ñëw dafa mel ni dañoo faatu waaye yow yaa leen dekkaloon ni nga leen dekke mooy da nga leen a xamalaat lan mooy sunna xamalaat leen lan mooy yonent bi ak yàlla xam nga jëmmi sunna ci boppam sunna du jëm waaye gars yi julleen sunna ñoo doon ay jëmm bu ñu ba faatu daanaka sunna mënees naa wax ne faatu na looloo waral bi mu ñëwee wax na ne damaa fekkoon sunna wax na ca tësawut su bànne kaada tura ka rasmi daari xat xafa fii sa zamani li mu diinil xunafa moo tax ba mu dikkee mu def liggéeyam boobee moo tax sa Ibrahima Diop daal di koy wax ne axyayta yaa seexu mawtal muslimina waxat jalayta anhum sada jëhlin wa ëx yaara yow Serigne Touba yow yaa ci nga xamee ne ñi deewoon ci ci julli ñi sax te fàtte sunna yaa leen dekkalaat waaye yaa dindi ci moom ak réer waaye def ci ñoom ak xam-xam waaye dem na ba yoon wilaaya bu fekkoon dafa nekk lu rab Serigne Touba bi mu dikkee da koo yeesalaat daan ko ramamta ma rasta min turkil wilaayati min min min turkil wilaayati bal jadata ba'da lurusin tilka la sëri ci kaw loolee it moo xamee ne Serigne Touba moom jëmmi na xam ne suñ sunna euh, Serigne Touba defal na ko lu rëy loo xamee ne nit mënee su koo defal ndax bu du doon moom mu naax saay looloo waral mu wax ca biir xas dëgg ne ko yow Sëriñ Tuubaa gërëm loo nga sunna ba mu kontaan waaye jooy loo nga bidaa ba mu jooy ardayta diinan wa kam adabta min bidain tad'u bi waylin waqad ak aqmara te feeñal nga ay weer ñoo xamee ne kenn ku ci ñoom rek mënoon naa dundal sunna te mooy ay magam yi ni ki Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Diouf ak Sëriñ Modou Lamine Diop Dagana wa rëyu waaye ci kaw loolee dem na ba mujj gi wax yi nu jéggi dayoo mu ne ko sunna si sax bég na ci yow yow Sëriñ Tuubaa ba tax na foo fekk sunna nee na day day sigire nee na kontaan lool di la tagg di la gërëm yow Sëriñ Tuubaa waaye nee na dafa kontaan kontaan ba lim lay kontaan yëpp mbalaan yañ ko woddee yow yaa ko waral daan ne ko fa hëes yi sunnatul muxtaaru fahiratun bi sukrika tuksa saa ka lan waara kon loolu rek dees ko doon wax ci ne xamee ne yeesal sunna mënee su koo génne ci jaamu yàlla wax nees ne thème bi noonu lañ ko bëgg a mooy benn bu ci nekk naka la ko dundee naka la ko taxawee naka la ci yare taalibe mi bokk na ci liy wanee ne gis-gis bu ndaw rek buñ ko seetloo ci ne Sëriñ Tuubaa jaamu yàlla ba mu dikkee dafa xool la yàlla wax ne wa maa xalaqtul jinn wal insa illaa liya'buduuni mu daal di koy def mu di aw doxinam jàpp ko mu di aw yat woo xamee ne ci lay dox ndax ba mu dikkee gaa yu baax yi wëy yëpp kenn ku nekk ba nga ñëwee da ngaa seen tuddee sa bopp ak noo taqriinee sa sa sa ismu ak laqab wala neex waaye moom dafa wax ñu ba mu ñëwee lan la wax abdullahi wa xaadimu rasul mooy jaamu bi yàlla waaye di liggéeyal yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci kaw loolee moo war moom Sëriñ Tuubaa ci boppam bokk na ci li nga xamee ne day walal ne jaamu bi yàlla la waaye jëwriñu yonente ba daka daan ñaan yàlla suñu borom ci ay mbindam te dina leer dem na ba ñaanam yàlla suñu borom nangul ko ko ci ay mbindam yoo xamee ne lu leer a leer la moom sëriñ bi ci boppam dafa nësaroon ci boppam jaamu yàlla mi nga xamee ne mooy aji kenn ji waaye li jëleel yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam loole moo waral ay yëngoom ay dalam ak léppam te na wazzau bayna hëseyni majaalayni te mooy abdullah wa xaadimu rasul moom sëriñ Tuubaa sa dëgg-dëgg-dëgg li ko taxoon a jug mooy doon jaamu yàlla ci wax ak ci jëf waaye yëmut ci wax ji rek dafa dem bay ay mbindam muy ñaan yàlla suñu borom ci mu def ko jaamu yàlla waaye mu def ko li nga xamee ne mooy jëwriñ yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam waaye bokk ci jëwriñ ya gën a kawe ñaan lool li nga xamee ne mooy yàlla suñu borom moo waral boo demee ci téeréem bu ñuy woowee fatxul fataax wax na fi ne maa ngi ñaan yàlla suñu boroom di yaakaar muyu samam ñaan ngir tatrin bi nga xame ne dafa dafa booleeg euh, turam ak jaamu yàlla nga xamee ne sax gis nañ ne yàlla ba muy yëgal yonente bi ci kaw subhaanallazi asra bi abdihi laylan la wax nga xamee ne mooy maqaamam bi gën a kawe abdu lay doon moo tax mu wax ne dama ñaan yàlla suñu borom di yaakaar mu ngol nangul ma sama ñaan li ma ko ñaan nag lenn la rek mooy ma doon jaamam waaye di liggéeyal yonent bi daal di wax ca mbind ma ne daawtu rabbi wa duaa iya yujib kaw ni abdallahi xaadimal xabib ba tey it boo demee ca xasida gi mu tënke wa amaama yanfaru naas fa yamsuku fi lard wax na fe man de jaamu bi yàlla rek laay ñaan yàlla suñu borom ak liggéeyal yonent bi nga xamee ne ak kawe moom si ko wut daan ne inni abdullahi jalla wa xadim lil mustafa lazi ixtilaauhu yadum dem na ba loolee ngir nga xamee ne lépp luy jaamu yàlla yi dal ko daan seedeel ba ci lu ñuy wooyee maxluqaat lu bu yàlla génnee ñun ñëpp xam nañ ne dem na ba géejug maa yombaa sax mu koy seedeloo naan ko yow maa yombaa seedeel ma ci ne man Sëriñ Tuubaa jaamu yàlla laa tey jëwriñu yonent bi la daa di wax ci mbind ma daan ne ko li sët bi kaw nii abda man yafiru zamba wa kaw nii xadimal mustafa bahrama yumba nga xamee ne chaque jour da ngay gis ci jaamu yàlla rek ba tey la wax dafay tënk turam bi ci jaamu yàlla ak liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dem na ba yàlla suñu borom may na ko nangul na ko li nga xamee ne mooy ñaanam googee ndax boo demee ci xasidaam bu siiw googee muy nuuru daare ni wax na fe yàlla suñu borom def na ma jëm jamonoy tey jii ma nekk ab jaamam boo xamee ne bu dog la waaye ma nekk jëwriñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan ne wa inna ni abdun li rabbin wa qadim lil muntaqa allazi siyaadatu siyaadatun boo demee ci xasidaam bu ñuy woowee mafatihul bistril kubra wax na fa ne yow yàlla suñu borom tudde nga ma bis ni ki tey ci lu dog ci ne man sab jaam laa waaye it jëwriñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laa nga xamee ne kon yàlla nangul na ko ak ñaanam moo tax mu daal di wax ne sa samaytanii qat'an bi qabdika alqadim yaa man yaquudu lii bushaaraatin tadu kon ci loolee it ba nga xamee ne yàlla suñu borom may na ko ba def ko mu nekk jëwriñ mu nekk jaamu yàlla waaye di liggéeyal yonent bi yëmut ci loolee rek ci nangu ko yàlla suñu borom nangul waaye da ci daan def da ci daan jund dem bay ñaan yàlla suñu borom sax naan ko nang ma def ma mel ni gaa yi nga xamee ne dañ doon liggéeyal yonent bi ni ki anas anas saxaabaab yonent bi la liggéey liggéeyal na yonent bi fukki at ñaanaloon na ko barke ci waa lansaar yi la bokkoon it nekkoon na ko am ay njaboot boo demee ci xasidaam bu ñu woowee xattaaba da ngay dégg muy wax ne wajaal maqaami maqaama murtada anasin fii xidmatin wa ka xassaanin asil xaraji kon day ñaan boo demee ba ci kanam wax na fa ne yàlla suñu borom mu ñuy woy xudduus denal na ma ci lépp luy tilim man Sëriñ Tuubaa waaye bu ñu demee ca yàlla maak anas ñoo fa yem baraanil xudduus min kulli danas fa sirtu xadimal Mustafa misla anas dem ba ci biir mu wax na yàlla suñu borom mi di ab sellaa kon seetaan na ma ci lépp luy tilim waaye bu njamee fa suñu borom jéggi naa anas baraanil quduus min kulli danas waaye ndax xayrul xalqi jaawastu anas nga xamee ne loolu yëpp mooy yëmut ci li muy wax tawilil baax yi muy wax ci téeréem yi da koo dund loolay waral it mu dem ba nekk koo xamee ne xejjub suñu borom la jege suñu borom jege goo xamee ne maara daytaali waaye kuy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu fawxa moom cheikhul xadim kon it kon jaamu yàlla mënta génn imaan islaam ihsaan kon benn bu ci nekk Sëñ Tuubaa nan la ko dunde nan la ko dundale nan la ci yaree ak taalibeem ci gàttal bu ñu waxee Sëñ Tuubaa ni mu dundee li nga xamee ne mooy gëm yàlla mënees na cee jël misaal li ñuy woowee xëybatul baxariya muy tukki gii mu def ci géej gi gëm yàlla moo ko fa yóbbu loolu bokk na ci dund gi mu ko dund waaye bëgg leen a xamal ne kenn rek la ñuy jaamu jaamu ngay jur njëriñ ñàkk ngay jaamu du jur lool mooy yàlla sax ci loolee tasbit ta moo waral ñu naqalu ko jëlee ko fii yóbbu ko fa ñu yóbbu yóbbu yóbbu ko ca il bu sori ba ci lu tolloog juróom-ñaari at ak lu teeg moo tax wax na wax na wax na ci li yàlla suñu borom waxanteeg moom ba mu waxanteeg moom ne ko wa is yamkuru bika allazina kafaru li yaxrujuuka aw yaxtuluuka aw yusbituuka wa yamkuru wa yamkuru laa wallaahu xayrun naakirin mu daal di wax ne waa daxalal ilaahu fi xulubi man tasaababu fi naqlihi zaaka zaman ixraajuhu ila bilaadin naaiya wa naala fiihi fawqa samxi saariya nga xamee ne kon ñàkk génn googu kon musiba la woon moo tax mu wax ne ba mu ba mu demee it amee na ca lu kaw lu kawe déggug saariya ngir rawanteeg waxtu wi loolu moom matu ñu ñu ñu ñu ñu cay diggoo ko diggaat boo koy wax ci wàllu pas-pas danga naan pas-pasu imaam Ash'ari yi la yoroon bu dee ci Ash'ari imaam Ash'ari yi la yoroon ci li nga xamee ne mooy pas-pasam. bokk na ci liy waral ak jaamu yàlla am dund gi mu ko doon dund mës ne se ganee woon lenn ci magi ndar yi xëy na kilifa la aajowu ñuy tudd turam ba waxtoom delloo jotee sëñ bi bëgg a dellu mag mi dene ko toogal sëñ bi ne ko baal ma dellu ci sama yitte mu waxante ak moom ba egg ci ne sëñ bi boo demut sax ma ma ma ma jaar yow nangam nangam di ko jaay baatin waaye sëñ Tuubaa da koo bind ay bayit ci ne fit fit wu mu yor mooy da koo bind ay bayit ñetti bayit yu siiw yooyee daal di koy wax ne njëriñ ak lor bàyyiwu ko ci mindeef dane ko képp koo xamee ne njott na ne ku dut yàlla dana jëriñ baa muy lor kookee mi ngi ci ay wor njëriñ ak loolu àdduna ak àllaaxira yàllaa ko yor say soppe mënuñ laa jëriñ te soobut yàlla say noon mënuñ laa jëriñ te te soobut yàlla nasaraan si mënuñ laa jëriñ ca soobut yàlla mënuñ laa roñ it te soobut yàlla daal di wax ne ca mbindam moomee daal ne man zanna xayrallaahi yaani aw yadur fa zaaka fii daarini zu kaddin wa dur adur wa nafxu min arrahmani laysa min albidaani wa suudaani addurru wa nafu min aljabbaari laysa min alfujjaari wal abraari addurru wa nafu min alwahaabi laysa min al aadaai wal ahbaabi nga xamee ne kon ba ci jëflante yi mu doon jëflante ak nit ñi sax da koy teg ci li nga xamee ne mooy gëm yàlla goo xamee ne gu mat mat gu mat a mat yàlla googee ci la daan jëfalanteeg lépp loo xamee ne mindeef la mindeef bi ko waxee mooy lu dul yàlla rek mindeef la xoolal ba mu demee Maayomba dem na ba mujj gi muy wax ak géej gi ngir dund gi mu dund gëm yàlla naan ko yow géej gi rikki waay dalal bul bokk ak nasaraan si nga xame ne dañuy tasli suñu borom dalal ngir terale ko sa borom ayaa baxru waxit laa tusallis fa rabbuna taala ni tasliti akrim bihi rabba kon nga xamee ne dem na ba mbooleem lu yàlla bind rek ci tawxid googu la daan jëflante ak ñoom loolu lépp di dund gi mu dund tawxid moom moom Seexul Xadiim moom moom moom Sëriñ Tuubaa ba tey it loolu la waxantee ak li géej bu fekkee ne bokk bu ñëwee ci ñaareel bi kon ci tënk rek ngir waxtu wi suñ Tuubaa nii la dunde woon li nga xamee ne mooy imaan muy taw tawhiid ndax gëm yàlla jaamu yàlla imaan islaam ihsaan la nii la ko dunde woon moo waral ñu génne ko fii yóbbu ko fu sori moo waral yi mu daan waxanteeg ñenn ñu mu daan jëflante ñi ci lii la daan ci gëm yàlla la daan jëflanteeg ñoom ba egg ci géej gi sax di waxanteeg moom ci ne ko dalal bul bokkaale yàlla suñu borom bokk na yi dundal gi ko dundal bëri na lool Sëriñ tubaab bind na ay téere yoo xamee ne yu bëree bëree bëri la loo xamee ne ci tawxiid lay wax bokk na ca tazawudu sigaar bokk na ca tazawudu subbaan bokk na ca téereem bu ñu woyee fawdul faydul faydul aniyil muhni loolu ci tawxiid lay wax waaye bokk na ci téereem bu siiw boobee nga xamee ne araf génnu ci tawxiid te mooy mawaahibul xudduus muy téere boo xamee ni bu yéeme yéeme wax na ca biir téere ba moom mawaahibul xudduus daal di ne tawxiid de lépp loo xamee ne doomu aadama da koy def compte bancaire di ko denc ngir ëllëg tawxiid moo ca gën ci bu faatoo ci bees koy pang lu mel ni dees koo laaj lu tax mu ne ndax tawxiid saa soo ko amee ñàkkatoo dara waaye saa soo ko ñàkkee leneen loo mën a am te amoo tawxiid faw nga am nga am tawxiid lool ngir loolu mën a compété moo tax mu daal di wax ne lakinama tawxiidu xayru zuxri li shaxsi fi lqabri wa yowma nasri li annahu an gayrihi yuni wala bidunihi yufiidu ilmi musjala ba tey it wax na ci faydu daa di ne tawxiid de képp koo xamee ne am na tawxiid na ko leen la am na amaanullah muy góolteeg yàlla waaye ki am tawxiid ba pare boole ci di jaamu yàlla suñu borom ak ñaari mbokkam muy fiq ak tasawuf kooku na ko leer ne jaamu yàlla gi muy jaamu yàlla du perte. teewaayu sëñ bi fii ak ñàkk teewam amul benn jeexital ci ñun ndax xam nañ kuy sëñ Tuubaa bu kenn ko sant Mbàkke mbaa ku sant bu su teewutoon sëñ Tuubaa mi ñu liggéey incha allah sama liggéey fii ci barab bi. sëñ Laat mii nga xam ne mooy suñu gannaaw. moo daa wax ne murit fu mu ne benn ak fu mu ne junni na ko bokk tubaab yi dañoo fas yéene xeex si sëñ tubaab 1912 ñu indi ko Jurbel 1913 ñu defal la première école française 1914 la sëñ Blaat gane jamono mooy doomu sëñ tubaab yi def gane jamono loolu moo nekk seen seen tontu kon moom buñ dee def bisu mel jël ko teg ko suñu gannaaw c'est symbolique am na lu ñu bëgg a wax am na message bu ñu bëgg a moo tax sëñ bi dañoo bugg rek jox ko mu sànni cay bu noppee moom duñ ko yewi moo nu yewi dem ñun ñu wéer jotaay bi ba li nga xam ne sumb nañ ko ñu mën ko yeggale ñu ñaan nag bu waxee ba noppi eh, ba na ñu kenn bañ a dem lu toog yeggale jotaay bi ndax suñ tubaab moom mi taxoon muy liggéey mi ngi fi te ju fi jóg seen saa waaye sëriñ bi bëggoon naa bala ngay jël kàddu gi nu sant bu baax sëñ tubaa sëñ tubaa moom yi moom yi nag muy sant mooy Cheikh Seydil Mokhtar ñun étudiants yëpp ak daayira yi ak université yi ak école yëpp ñu ngi bokk di ko ñaanal bu yàgg fi loolu téwéer ndax bëgguñu dimbali moo tax mu toog kenn wax ko dara mu xalaat ci xalaatu boppam ne dafa bëgg daay daay yi nga xam ne ñoo yëngatu ci université yi école de formation yi dajaloo nekk genn mbootaay bu ko neexoon mu sant ko mécanicien yi wala mu sant ko yeneen kuréel yoo xamante ne bi ay murit lañ wala commerçant yi nga xam ne am na ay daayira waaye dafa xalaat ñi nga xam ne ñu nekk ci école yi tubaab yi dafa jàngal nañ boole seen bopp tudd tudd ñu turu rëy bu plein de sens muy mawaahibul akyaasi jël aw bayit ca bayit yi nga xam ne moo ne ki diwaanu saxal yi muy aw rasami mawaahibul akiyaasi yaa man shafa sudura fi qiyaasi muy tur bu rëy ndax akiyaasi ñu ko tuddee war ngaa góorgóorlu ndax akiyaasi baat bi ci boppam ci la al kayis jógee te mooy kiis googu nga xam ne moom la ñu xel neex kon sëñ bi njottal nañu xel mu neex kon waruñu ko war waruñu ko gàcceel am jom rek ak fas fas laxasu di ko liggéeyal mooy leen war bu yemal foofu doo da doy sëkk waaye bëgg na dimbali moo waral mu jël comité d'organisation màggal bi jël gan ya nga xam ne moom la jàppe gan boppam moom sëñ bi ne dama bëgg ngeen toppatoo ma leen ña mu jàppe gan yi boppam mooy nit ña nga xam ne ci màggalu Tuubaa bi ñetti fani màggal bi ñoom ñoo fasoo jàng alxuraanul karim ak jàng xasida mu ne damaa bëgg ni ñuy toppatoo kër yi diine yeneen yi di ko toppatoo ñoom itam ngeen leen toppatoo noonu yéen seen mbooloo mii laa jël ngi ngeen toppatoo lu ngeen nga sama nga di bopp rek bu ci yemoon mu doy daf nañu lépp loo xam ne moo moo ca war a dem ci lekk ak naan ak lu ñuy fu lu leen taxaw ci seen i eh, matelas wala seen i climatiseur mbaa lépp fu ñuy jàpp mbaa nangam na ngeen ma ko wax man maa jël sama xaalis def ci jël ay millions jox ñu te damaa jàpp ne bu ñu ko bu ñu ko santoon rek yem ca foofu la ndimbal mën a yem waaye sant la liggéey ba noppi liggéey liggéey ba bàyyi laak sag bi loolu ñu sëñ bi defal pour sëñ bi ñun ñëpp ñu ñaan suñu xol yàlla yàggal ko fi lool yàlla wéral ko yàlla bàyyi ko suñu kanam bu yàgg yàgg yàgg Mbàkke danañu sant bu baax baax itam ki yor kàddoom ci nga xam ne moo di ay loxoom di ay gëtam di ay tànkam di ko sant ci loo xamante ni mën na ko wax ci micro ak loo xam ne ci xol lañ koy fas ñun ñun bu ñu ko dundee yéen di ngeen ko xam Cheikh Mouhamadou Bachir moom Cheikh bu Xaadir ñun mbooloo mi amuñu payam jàppale nañu jàppale goo xamante ne bii yàlla rek lañu koy seedal bis bii. li ko yëmbal lépp moom def na ci ay teraanga lu toll moo xamante ne bii bu ci duggutoon dana sooxe lool te loolu yàgg na ko def bari na daayira yi yoo xam ne ay université lañ fi ne jóge fi dem ziar yi seen Mokhtar bu ñu demee dal kër moo leen toggal añ jox leen gratuitement lu mbooloo moo a toll te ñu bari ci ñun bi suñu sëriñ bu fekkee dañoo waxe wolof waaye xam ne position bi mu nekk position bi suñ mu waral fu daayira jóge université mu toggal aw ñam dalal la la ca war lépp mu def ko sëñ bi suñu digganteeg moom xaju ci jaraay si koo leeral taxaw nañu taxaw goo xamante ne bii la suñu ndey yéene woon ci ñun ak su ak la suñuy bàyyi yéene ci ñun sëñ bi taxawee boobu la taxaw ci ñun dañu xool bëtu biir ma ne ñu bari ci ñun mu leen jàppale ci lu nëbb ak ci lu feeñ sëñ Mamoun mii mën naa seet li may wax am na ci ay jafe-jafe bari yoo xam ne moom bu ko yëgee bu yëgee sëñ bi day dina chanté wu sëñ Ahmed Saloum may naka noonu ndax ni ni sëñ bi nga xam ne moom la sëñ Bass nekkee tànki sëñ bi ak i ak i ñoon ñoom it noonu lañ nekkee loxoy sëñ Cheikh Bass Abdou Khadre ak i tànk ba ki gërëm muy sëñ Alaaji Bousso mii nga xamante ne bii moom itam kenn mënut a wax sëñ Bass wax ak yaay te ko naka noonu Cheikh Jili Mbàkke doon te teewal ci jotaay bi kon ñoom sëñ Maamu ñii li may wax nañ koo ko am na mbiri biir yu ruq yu seq yoo xam ne seen bi ci kaw li jënteem ak bëgg rek suñu adduna jàkk suñu alaxira jàkk def na ca ba def ca loo xamante ne bii mosu koo defal doomu aadama loolu bu ñu ko waxee ñoom ñu ko seqal danañ ko xam kon bu fi nit ñi teewee Mbàkke day des na seereel loolu ci sëñ Mouhamadou Bachir moom Cheikh Khadir ñoo ngi ko ñaanal bu baax a baax a baax yéen bi yàlla na woyof ci moom yàlla sut wóojër mu aw fan liggéey bi ko sëñ bi dénk ndam yi mu ci mas a am rek yàlla na ndam yu ko gën a kawe topp fop te rafet na ci njort ñu ngi koy seereel ne ko ñu ngi ci gannaawam noo ngi laxa saa ànd ak moom liggéey bi lépp lu mu jàpp ne bu ñu ko santee baa bu ko àndee ñu des na ko def noo ngi yeesal suñu laxasaay fas yéene jàppale ci biir ak ci biti suñu xol na ci moom su suñu xel dal ci dal na ci moom su suñu yaakaar dolli bu naa dëgër suñ tubaa rek lañ koy bàyyee moom mi nga xam ne xam na ne maamam lay liggéeyal ci suñu jëmb yi nii ndax defaluñ ko dara lu war mu sonn lu toll ci noonu kon sëñ Bass gis gis-gisam ak xalaatam ak waxam ju rafet ak yu jëfam ci mbooloo mi fii ñun ñëpp mën nañu ko seede kon na ko jot li cantu mbooloo mi yëpp ci sama kàddu te xam ne wax dëgg yàlla jotaay bii tey jii ñàkk ñàkk nekkam ci réew mi képp moo tee mu teew ci ndax ak yéene bi yegg na ci bés bi wax nañu nañ ko topp nañ ko puusal fomm ko ndax mu mën koo fekkee ñu fommaat ko mu tombeek magasin bi laat mu fommaat ko ngir bëggoon mu bëggoon koo teewee waaye li ñuy bàyyi fii moo ko bàyyi fa ne muy ndigalu sëñ bi kon na ngeen ko xamal ne ko moom day ak teewam ak ñàkk teewam amul genn jeexital ci ñun ndax Sëñ tubaab bi tax mu ñuy liggéeyal xam nañ ne Sëñ Tuubaa bi fii mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bi nu sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci sayduna muhammad alayhi salaatu wassalaam di sant seexuna cheikh ahmadu bamba xaadim rasul nu am ndigal lu jóge ci sunu waajur a cheikh muhammad basir mbakke ndigal la jóge ca a Cheikh Seydil Mokhtar ñu teewal ko fi ci bis boo xamante ni bis bu mu fonk la bis bu mu yëg la bis bu ko neex la bis boobu nag mu tànn ci ña nga xamante ni mooy ñi ngeen gis rekk lépp loom man di yónnee walla lu muy doxlu génnul ñi nekk ci taabal ji nii di ci jiital Cheikh Ahmed Cheikh suñu Cheikh Gaynde Fatma mu sëriñ Moussa Basir ak sëriñ Mamoun Mbakke ak sëriñ Ahmed Salim ak sëriñ Alhaaji Busa ñu nekk ñoo xam ni kenn ku nekk ci ñoom rek fu mu teew rek da ngeen di jàpp ni jëmmi sëriñ Bassirou Abdoul Khadir moo fa teew ci seen xam-xam ci seen dal ci seen teey ci seen bëgg sëriñ Touba ñu nekk nit ñoo xam ni lenn ngistal nekkul ci ñoom ndax xam ngeen ni Cheikh Mamadou ku ko xam ku muy àndal ci dëgg lay ànd ak yow ak fonk sa bopp gëm sa bopp ginnaaw bi nga xamante ni gëm nga suñu borom tabaraka wa taala loolu lay ànd doomu aadama moo tax moom la àndeek kilifa yu tëdd yi ak ñeneen ak ñeneen mel ni ñoom waaye daal ñii moom ay tànneef lañ ci tànneefi sëriñ Basiru kon loolu ñu seeral ko mbooloo mi yépp seeral ko àdduna sépp nag ndax kilifa bu jëlee ni teg ko ci kanamam am na jikko yu nekk ci moom yu nekkut ca xëy na ñañ ko xàmmee ci ñañ ko tegut te lépp nag di doxinu sëriñ bi kon loolee bu lii dee dox tey jii ba mbooloo mu toll nii waroon a nekk ci leneen waroon a gëm leneen lañu waroon a gëm muy nasaraan bi nga xamante ni nasaraan bi nga xam ni moo sonaloon sëriñ Touba Serigne Touba tey sunu borom weccee na ko loole ci mbooloo mu tedd mii nga xam ni mbooloo ku leen xool seen xar kanam yi xam ni Serigne Touba moo ko fees dell kon loolu ñu leen di ñaanal bu baax suñu borom tabaaraka wa taala jëf jure ji ngeen jëf yàlla bu leen ci gis seen bopp yàlla bu leen bu ngeen ci naagu ndaxte la ngeen ci bëggoon lépp suñu borom defal na leen ko mooy lan muy booloo gi ak nekk gi benn ngir lan liggéeyal Serigne Touba Serigne Touba nag. dafa am nuñ koy liggéeyale nañ koy liggéeyale mooy ginnaaw ba nga gëmee sunu borom tabaraka wa mi nga xam ni moo la sàkk mi nga xam ni moo lay dundal mi nga xamante ni boo wéetee ak boo wéttilikoo moo la gën a jege sa buumu xol sëriñ Touba moom sëriñ Touba képp koo xamante ni meloo noonu ci sunu borom da nga xam ni seqoo sëriñ Touba dara kon sëñ Touba mi nga xam ne moom la ñuy tuddoo guddi di ko tuddoo bëccëg la mu digle mooy la sunu borom tabaraka wa taala digle la mu tere mooy la sunu borom tabaraka wa taala tere ñuy ñaan sunu borom tabaraka wa taala moom i mu dimbali nu suturaal nu waaye sutura soosee nag ñoo ko mën a defal suñu bopp ndax kenn ku nekk yaa gën a xam sa bopp sa moroom kenn ku nekk li nga yéene ci sa xol xam nga ko bu ngeen gisee nit du am jàmm mukk na nga ni ngeen xam ne kooke dafa yéenewul kenn jàmm te ku yéenewul kenn jàmm na nga xam ne doo am jàmm mukk ci àddina te yaakaar naa ne ku ni taalib Serigne Touba la war nga am xol bu sell war nga am xol bu rafet war ngaa nekk koo xamante ni ku la xool dana xam ne kii Serigne Touba jeex na ci moom tàkk wala ku ko xool dana xam ne kii muritub Serigne Touba la la ca jiitu mooy ca xol ba ndax nit ki dafa war a defal xolam ba ku ko gis sopp ko dafa war a defal jëmmam ba ku ko gis sopp ko ci lan ci col gi ak ci màndargawu ci jullit bi jullite nga xam ne ku la gis dana xam ne kii kat taalib Sëriñ Tuubaa mm-hmm. waaye nag bu jaxasoo yow du néeg a taqalikoo ak yow ngir xol bu sell xol bu rafet ndax lu ëpp ci nit ñi dañuy juum ci doomu aadama ci kaw boo jaxasoowut ak moom danga gis nit jàppal ko loo xamante ni jege ko sax ci ay dégg-dégg ci ay wax yoo xam ni waxi mbañeel la waaye bis boo demee ba jaxasoo moom danga naan danga yeddaat sa bopp sax te loolu dafa bari ci jamono ji lool kon kenn ku nekk nay xalaat ci moroomam lu rafet nay xalaat ci moom jikko yoo xamante ni si buñ ni woon diw def na nangam sax na ko wedd ci sensé doonte xamoo ko ngir lan danga war a jàpp ni ab jullit wër te dencal moroomam lenn kiñaan wala lenn soxor alhamdulillahi lazi jaazi man asanu bi xayri wal mafaa